mais yeg yegu responsabilité da responsabilité. wane ne fi jëm dañ ñu sas sénégalais dañ yaakar ci ñun suñu frères yaakar ñun suñu sœurs yaakar ci suñu famille ba peuple bi ñun donc yeg yeg fa a am mooy fulla nga fay war a ak fayda bo Sénégal fois champion d'Afrique ñu war a défendre seen titre. Mhm. wax nga ko léegi groupe bi am na ay jeunes. Mhm. ay cadres yaa ngi fi tam état d'esprit bi ak préparation bi lan la. waaw comme ni comme ni ma ko mun a waxee tey jii du yomb parce que li tax ma ne du yomb euh, je pense que Coupe d'Afrique bi waxoon naa ko waxaat ko avant may nekk coach bi parce que ki ma fi doon liggéeyal xamoon nañ ne mooy Coupe d'Afrique bi nga xam ne mooy gën a metti boo xoolee ne équipe yu si bari tey dañu yeewu équipe yu si bari tey dañuy def ay matchs amicaux yu bari. boo xoolee tey mun naa la wax ne la am na si ay équipe yoo xam ne mënu ma tudd seen mais lu mu dee dee rek def nañ lu tolloo fukki match ak juróom kon loolu day wane ñoom njariñ bi coupe d'Afrique bi am te mu nekk joŋante boo xam ne ku nekk bëgg na ko jël Mozambique boobu ñu jëm noonu bu ñu fàtte moom lañ jëloon final fi Dakar te moom tamit da ko bëgg a jël aussi tamit mais ñun tamit nañu wane ñun ñooy champion d'Afrique mais aussi tamit nañ dem si modeste si sérieux ak si jub aussi tamit bañ a naagu aussi tamit moy ñu dem fa fula ak fayda comme exemple tactique bi nga xamné mom lañ leen wax ñu jéewoo ko ni ñu wara taxawé ñu taxawé ko aussi tamit mais aussi tamit comme nima ko waxé mënul yombaat encore surtout si man parce que li tax ma wax ko moy tay kii fi jege dafa gagné ñetti coupe d'afrique équipe bi gagné 6 fois coupe d'afrique kon man tay dama wara a ñëw.

donc tay ji fofu buñu wéré jé ñetti match ñaari match la jé ñaari match yoyu mën na handicapé parce que équipe bobu mun na arranger pool bobu parce que dinañ am ñaari match ñun ñu am ñetti match té bul faténé ne Bitou Soko boo joué tey souvent nga noppal ko benn jour wat benen jour wala nga jé tay jé wat suba yooyu yeb dang koy calque donc sur le plan de récupération ñom ñoo ñuy ëpp chance ci côté bobu aussi tamit loolu fay basculer touti classement bi sen sen groupe dina xawa metti parce que ku fa am défaite rek